Euh, mashallah, allah monsieur Ndiaye tey moom daf ngaa xumb ma fàttali aussi tamit c'est mon professeur nekk na suma professeur ci jàngal na ma en classe de terminale tey kon professeur bi ak élève bi ñoo toog. Ah. <laughs> gis nga lu yàlla di def. adduna moo tëddee noonu euh, alxuraan day wax ne yàlla def lu ko soob. Mhm. vraiment ma am mbégte nag ak contente bu mag ci dalal la. nga mhm. aussi tamit un responsable politique. Mhm. démb gis nga ko njiitu réew dans le nañu wax ni 2019 2020 2021 2022 ba 2023 dëkk bi mhm. yëpp di yëngutu mhm. surtout entre 2021 et 2023 dëkk bi yëngutu yëngutu bu metti mm -hmm. bokk na ci nag yëngutu yi leader de ci ñëw ci waxtaan bi Ousmane Sonko leader mhm. de Pastef mais aussi timit troisième mandat bi yëngutoon dëkk bi démb ñu gis président génn wax discours am nous ko apprécié en tant que responsable politique aussi timit Pastef nan nga jàngatee discours président de la République. avant may ñëw ci sa question. damay ñëw d'abord ci sama contentement aussi. dox ba dajeeg suma ancien élève. mu ñëw taxawal lu mel nii. di éveiller les consciences. di éduquer la population. di leen informer juste. ak euh, objectivement. donc ñun professeur en fait loolu kese la ñu am. ci ci fierté lu ñu mën a jox choix. moo man aussi tey kontaan naa trop qui euh, entretenir une euh, conversation ak vous. donc bu ma bëggee ñëw ci euh, discours Macky Sall bi bi ma ko dégloo ba pare ñaari axe laa gis ci discours bi premièrement la déclaration am ne du candidat beneen bi ben discours de fermeté ak discours vingt ans la laa ko tuddee ñaar a la gis

Mon petit point personnellement je réfléchir né du troisième mandat ndax buñu xolé li depuis comme ni trois ans sénégalais particulièrement les patriotes ñi ngi de lutter pour la démocratie de lutter contre l'injustice mais non seulement à l'intérieur du Sénégal mais tout dernièrement euh, la question a été internationalisée ba nga il y a les organisations internationales ku degno na ONU lu mu ci wax ku na aussi Union européenne bi nga xam ne ni Aïssata dem na fa le député européen aussi li mu ko wax ci ne Sénégal ñoom ñu koy xel parce que seeni intérêt fa la et que Macky Sall mi ngi bëgg taal réew mi parce que mi ngi waxul waaw waxul ci troisième mandat bi et que aussi def na benn dialogue bo xamné ni la principale force bi nga xamné ni moy euh, le PASTEF loolu le ñu insinué wuñ ko ci dialogue bi donc bo dé xol facteur yu bari moom motax tax Macky Sall ñu pousse ko ba dos au mur ba nga nous ni mënul wax lenn lu du def troisième mandat parce que non seulement au niveau du Sénégal Sénégalais notamment les patriotes mais sur le plan international aussi n'oublions pas qu'il y a une plainte contre lui au niveau de la CPI donc yoyep yëpp peser le pour et le contre les avantages d'un troisième mandat et les inconvénients bi mu calculer la balance à peser sur les inconvénients et li nga xamné ni mën préférer une intelligence politique daal ne troisième mandat kon su ma la déggee yow maam. Euh, pression yi moo bari ba kon maam li mu déclaré du ma nekk candidat dafa nekk loo xam defee ak sago. non xam nga fii Afrique ku nekk xam na Euh, en matière de lutte démocratique rien ne se donne sur un plateau d'argent maanaam du dara loo xam ne nii da ngay toog rek nos hommes politiques là nga xam ne nii dañu bëgg pouvoir ba mu ëpp ñu jox la ko yow yaay xeex même euh, réforme yi nga xam ne nii moo am ci constitution bi ba ñu dem ci. Euh, arrêté ko à deuxième à deux mandats loolu lepp gis nga ay bakkan dee nañ ci M23 xex nañ fi ñi fi nek tay diko protéger yag nañ leen gis ñuy xex au niveau de l'Assemblée nationale au niveau de la place de l'obélisque waxoon ne nañ sax dañ fay fanaan am ci ño xam ne ñi ngi leen emprisonné am ci ño xam ba légui ñi ngi traîner seeni blessures donc amul dara en Afrique lo xam ne ni da koy jot ci wax mais lepp ci xex d'ailleurs même si on Afrique l'Afrique, il amul a pas ni donc on dit que tout a un coût dans la vie surtout en matière de démocratie boo ko les États-Unis ils bi nga xam ne 1776 euh, mais ils ont fait une longue guerre contre la Grande-Bretagne pour l'indépendance. jël indépendance La Chine bi nga deuxième puissance économique mondiale Tout ne monde wax et koy prévoir la première dans 20 ans ou bien dans 30 ans Chine aussi ku de 1936 pratiquement à 1949 mais xeex bu metti moo fa mhm. entre les communistes et mhm. le euh, gouvernement capitaliste de Chiang Kai-shek mhm. mais y a aussi des ko arraché vous demee Indochine non, Si vous aussi Algérie non, boo demee Inde avec Mahatma Gandhi c'est la même chose aussi voilà donc vous euh, xam nga bu fekkee ne xam nga histoire rek am na ci bëri loo du la mhm. donc adduna amul lenn loo xam ne nii on te le donne sur un plateau d'argent mhm. mais da ngay xeex rek pour jël ko wax wax nga léegi léegi ci da nga waxoon discours da nga ko send ci deux parties mhm. première partie bi moo un vendeur de guerre la dem ñëwagoo ci deuxième bi nga ne maam euh, euh, pression bi euh, vendeur de guerre foo teg ne dafa mel dafa def discours pour xeex oui discours pour xeex dans la mesure où dama ko dégg bi mu waxee ne donc dafay renoncer à sa candidature mm -hmm. Après pare euh, il est prêt à faire appliquer les décisions et de manière ferme mu en substance té ñëpp xam nañ le euh, problème bi nga xam de justice bi nga xam ni mo fi nek tay moy le cas Ousmane Sonko et puis ñëpp xam nañ ni aussi tout ce qu'ils ont fait c'est pour tout simplement écarter Ousmane Sonko donc ñun tay bu défé dara jéem a Ousmane Sonko duñu ñu parce que xam nañ ne wax na ci discoursam parce que on dit que ku wax feeñ donc bi waxé rek comme ñun aussi ay nitu xel lañu xam nañ ne après fay bëgg légitimer dem japp Ousmane Sonko ndax pour mom Sénégal yi nga xam ne nii ñi ngi doon xaar Macky Sall day def 3e mandat wala déet mu may leen 3e mandat bi. c'est une façon de parler. Mmh. donc tay bu newoon day yëkëti dossier Ousmane Sonko bi sénégalais dina né ah comme Macky Sall bokkul donc fay tout simplement bëgg justice doxal yoon. bëgg justifier voilà c'est tout simplement ben genre prétexte. mom la kay woyé pour que mu jéem isoler le président Ousmane Sonko. ñu gis comme li nga wax ci Ousmane Sonko bob transition bi ci lañ jëm. avant président def discours mom dafa def discours am. Mhm. dafa melni mom moom dafa gisoon ne lii lépp am nan nga ko analyser mo ci discours non xam nga Ousmane Sonko. C'est un homme politique moi je vous dis qu'il est en avance par rapport aux autres par rapport aux anciens politiciens parce que anciens politiciens bon, me moi de un petit commentaire Ah, c'est bon que politique c'est mentir politique c'est nga nous dig nit te deal politique que élection jot nga Moi, Ousmane indi réel politique la politique au vrai sens du terme. Comment gérer la cité. Comment prévoir. te xam nga prévoir rek daf anticiper sur les événements et bu faites ne anticiper sur les événements il faut lay d'une année lumière donc Ousmane Sonko et un euh, politiciens sénégalais le mm-hmm. problème est là. la mm-hmm. et puis je peux même élargir ça ma sénégalais. Sénégal il wala Il dafa changer ba nga on est dans un monde où il y a plus de distance il y a plus de temps ba nga xam ni les ñi nga xam ne nii ñoom ñooy diriger ñi ñuy diriger sax boo dee xool lañ leen di raw que muy ñi nga xam ne nii dañ dañ ou tubaab wala ñi nga xam ne nii dañu euh, arabe population comme le monde est tellement ouvert ku ci tu as la connaissance à ta portée yaa euh, internet am lu mat ay chaînes donc y a ci réseaux sociaux yi tu es informé il y a une analyses profondes c'est des professeurs qui le font ba nga on est arrivé à euh, au Sénégalais unidimensionnel donc Sénégalais yëpp kenn mënatul nax sa morom parce que les gens yeewu quoi te loolu li ko waral mooy développement technologie bi développement information ak communication. Euh, tey la nga ko mm, développement technologique communication daanaka mom sax ci lay sukkandiku tey ba egsi fu mu egsi. Mm-hmm. Euh, léegi gannaaw bu Macky Sall mom def na discours

fu mu coupe rek ñu fay su fait ne faut continuer son gentleman agreement continuer sur la lancée problème détenus politiques yi ñu réglé les autres dossiers qu'on semble oublier le problème la Covid bi les mille milliards de Covid ba il faut képp koo xam ne war nga langue politique bi nga dem chercher le suffrage des Sénégalais mais si nous voyons ñu wuyu mhm. mais nous allons résister parce que c'est un droit constitutionnel